aousubillahi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalatu walsalaamu ala man ursila rahmatan lilaalamin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulilah wasalatu wasalaamu ala rasulillah wa ma bikum min nicmatin fa min allah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di ñaan yàlla tabaraka wa taala yal na yàlla boole ñu nangul ñu dellu siwaat rek comme niñ leen ko faral daan defee at mu jot tey ñu dellu siwaat ci douzième édition bi nga xamante ne bi délégation war naa jóge fii ànd ak Chérif Ibrahim Haydara at Tijani bi ñëpp xam ñu déparé fii ci amokat euh, jëm fan jëm Louga ca Chérif euh, Thierno Mountaqa Taha Tall ci ziyaaram bi nga xamante ne bi tey doomam tey xalifaam tey ki nga xamante ne bi moo fa toogal Cheikh Omar al Fouti yiw di Thierno Bachir Mountaqa Taha ñun ñëpp ñu war koo dem ziyaare ji incha allahu rabbi ànd koog moom ak mbokk yëpp fa tabaarakallaahu mbokk yi bu ngeen ñu xoolee ñu ngi nii taxaw oto yaa ngi pare pour dem ñu ngi euh, ci dernière euh, dernière préparation yi nga xamante ne bi buñ ci jugee rek dañuy départ léegi jëm Louga fekki kan Thierno Bachir Mountakha Taha waaye ànd kook Chérif Ibrahima Haydara at Tijani bu amukat tey ci samedi bi di 12 janvier incha allah 2019 Euh, mbokk yi nii lañ leen ko faral daan defee at mu jot te ñu fekkee ko yàlla na yàlla may ñu ñu fekkee ko ay at yu bari bari bari waaye ngeen gis ni chaque année rek ñu am benn euh, évaluation bu ci am boo xamante ne bii euh, bés bu nekk rek ñu gis ni mi ngi gën a avancé mi ngi jëm kanam loolu nag dañuy ñaan yàlla tabaraka wa taala yàlla na yàlla may ñu ñu koy fekkee at yu bari bari bari mbokk yi yéen a ngi gis Chérif Ibrahima Aïdara Tidiane sunu ginnaaw mu taxaw ak mbokk yi nga xamante ne bii ñoo naa ànd ak moom kaar yaa ngi fii ci ruq bi incha allah oto yu ndaw yëpp a ngi gaare waaye dinañ départ léegi jëm fan jëm luga incha allah ci ziare Thierno Mountakha Taha ca Cheikh Oumar incha allah buñ ci yeggee rek buñ fa yeggee la fay xew lépp dinañ leen ko tegal en direct ci seen chaîne bi di Cherif Dabakh TV di ngeen gis lépp waaye en direct lañ leen koy defal. képp koo xamante ne bi am nga ci soxla rek boo defee Cherif Dabakh TV ci YouTube bi di ko am en direct nga seetaan lépp dara du la ci raw incha allah kon mbokk yi ngeen topp ñu rek ñu fexe ànd ak yéen ak ñi nga xamante ne bi ñoo jëm luga ba euh, ci kanam incha allah أبدا جاء يسأل يا مانعا عن سؤال صار أحراري يا أكرم الكرام سبت بنا إلا طبيبا لو سوى الذي كل يوم شأنه جاري يا أكرم الكرماء يا أرحم الروح أحراري من وداع يا ربي أضناني وأدنفني عجل إغاثتنا يا خالق الباب ثوابي مدنسة بماء عفوك أرجو غسل أقداري يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحمن يا ألطف اللطفاء يا برد أحرام góor gi ne wa rahmatullahi kullal xalqi qad wasi'a min fajirin wa mudi'in zahidin barin wa rahmatullahi kull الخلق قد وسع من فجير ومطيع زاهد بارئ لو كان بابك لا يطيل إذا ذا ما دعي غفورا كل أوزاري لو كان بابك لا يأتي ذو إثم فما دعيت غفورا كل أوزاري خاطبت ربي قتال بنا فاغفر لعبد من العذاب حيا لو كان بابك لا يأتي الربيع ما صدق ربي للفقراء من دون إنكار لو كان بابك لا ياتي ذو إذا برجنا فما تعين كل أوزاري إني فقير ومسكين ومنكسر كثير ما احتاج غيرك في تيسير أو ماري لو كان بابك لا يأتي ذو مرجن فما دعيت غفور عن كل أوزاري أوزاري أنت ولي في الدنيا وضرتها توفني مسلما في رهب أبرار لو كان بار ربك لا ياتي ذو إثم وما تعيد غفورا كل أوزار هبني إلهي يا ربي توبة كملت وستر خطاياي يا ربي أي أستار لو كان بابك لا يأتي ذو إثم فما دعيت غفورا كل أوزاري وصبر ترى عن شهوات النفس ثم على مصائب ربنا هي هذه الدار لو كان بابك لا يكيد إذا بكنا فمدعي عفوا كل أوزاري وصبرا في نعم لم أحصي عدتها والشكر يا ربي أعياني أحصاري لو كان بابك لا يأتي دعيت غفورا كل أوزاري أوزاري وليس برك ما أصوت بمن حسون ورقنا حالات ذمتنا من قصد أبراري والصلاة لو كان بابك لا عتيد إثمنا ومن دعيت غفورا كل أوزار ولا تكلني إلى أمارتي عوجا ولا شكاية أسقى ni ngeen ko xamee ñi ngi fii taxaw Thiès jël si Euh, Cheikh Sidi Moukhtar Kounta ku ko xam-xam ko ak Chérif Ibrahima Haydara Tidiane ndax li muy tudd turam bari na kon euh, defoon nañ ko daaw ñu fekkee déwén li gars yi di wax dañ koy baaxantal incha allah di ñaan yàlla euh, lépp lu ñu fikki rek yal yàlla def ko mu nekk yiw àddina ak àllaaxira sëriñ bi mu nuyoo ak mbokk yi ñaanal ñu tabaarakallahu bu pare ñu laaj ko yi ko bëgga laaj sëriñ bi bismillah rabbi ashrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yashfu qawli salaatu wa salaam ala rasulillah sayyidil mursalin sayyiduna muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Hmm. waaw comme ni nga ko waxee rek da ni ñu baaxantal. Mm-hmm. baaxantal nag buñ ko dee def kon lu ñu yàgg a def la. Mm-hmm. te nit lu lay jigul doone ñu baaxantal. waaw te ci jataay bi léegi bi ñu taxawee. Mm-hmm. da ci am loo xam ne moo gën dal suñu xel. lu ñu yaakaaroon la nag it nag waaye li ci gën dal suñu xel li naan nettali ci làmmiñu borom. am nañ fi mbokk yoo xam ne yii léegi la ñu ñëw ne Chérif ñoo ngi lay sant di la gërëm. ndax 2015 kenn ki ne 2015 bi may dugg di ñëw ci convoi bi ci bus laa dugg. boobaak léegi nag maa ngi ci gis ak yokkute ñëw naa ba fi mu ne nii ren ji sama oto laa yor mais comme nag ba ma gërëmee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi ah di la won ni mbir mi ci li nga nu woo dañuy xam ne kon yàlla kese la waaw ma ne ko nag nit ku ne ba ngay jóg di ñëw yàlla rek nga fi yaakaar mm-hmm. ñëwoo ngir leneen dangaa ñëw ngir yàlla ak yonent bi ci fi ñuy jëmit dañu woote ngir yàlla ak yonent bi kon ku wuyu si loolu di ci dem di ay at bu dee lu wér ci yow faaw nga gis ci yokkute kon nag Chérif li muy dox jàpp ko it yaakaaru na te du ci moom rek keneen ki it wax keneen wax ku ci ne ëpp nañu juróomi nit ku nekk wax nga ma ah, man it ma gën ci santaat sunu borom waa xam ne wax dëgg yàlla liñ ci doon séentu yàlla def na ko kon nag yàlla nañ ko yàgg def képp ku ci bokk it ah, sunu borom aajo biir ak biti yàlla nañu yàlla fajal sunu aajo ñun ñëpp ci biir ak biti ndax wax dëgg yàlla bu jógee moom Cherif def lu mel nii di fekk nitu yàlla a ah, aajo bu yëpp nag ku ci rafet njott rek sa aajo mën na cee faju waaw te it yàlla ngi koy def te mu ngi ñu ciy wan it loolu kon nag yàlla na yàlla eh, barkeel yàlla yokk sutura si ni jaay sa jiw jooju sallallahu alayhi wa sallam Euh, waaw euh, laaj bi ñuy tëjee rek mooy sa digganteeg Chérif ku ne xam na ko euh, mbégte bi nga am ci bésub tey gi nga xamante ne bi sa yu yegsee rek mbégte bu tol noonu daanaka di yokk chaque année mbégte moomu nan lañ ko mën a jàngat. waaw njàngat gi de lu yomb la mhm. ndax xam nga nit moom bu fekkee da ngeen a ànd ànd bi it muy yàlla rek mhm. ngir yàlla rek la ñu ànd ndax bu nu àndoon ngir leneen mhm. du yegg si ba fii. wala it dana am ñagas-ñagas waaye ànd moom bu fekkee ngir yàlla kese la mm-hmm. ah, day yokk rek mm-hmm. waaw te it am na ci jikko yoo xam ne bu ngeen ko àndee mm-hmm. moom de la mu wax ci sama jikko rëy na rëy goo xam ne gëwuma ni sax man mel naa noonu waaye moom it moom li mu wax ci man li tax ma jàpp ne rëy na ci man ndax nit ku baax moom booy wax li ne ci yow rek ngay wax moom te booy wax li ne ci yow day yomb Euh, lim ma waxal lépp nag daa ci moom rek mu jël ko teg ma waaw te it euh, nit ki bu fekkee ne yéene yi rafet na te yàlla rek tax ah lu ngeen yéenante yàlla dana ko nangu waaw te boobu ba léegi it bi ñuy ànd di dem yokkute rek lañ ci gis waaw yàlla na yàlla barkeel ñu yàgg koo def di jaay sa jëmu jot sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Kounta kon euh, ñu jàll ci sunu sëriñ Euh, wëllëreeg Chérif Ibrahima Haydara Tijani mu yàgg lool moom it tabaarakallaahu kon nañ koy bàyyi rek mu nuyoo ak mbokk yi incha allah rabbi salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, Seydou Souleymane ñu ngi lay euh, ziar bu baax a baax a baax di am mbégte di taxaw ak yow ci li nga xamante ne bii mooy gam ziar bi ñu jëm Louga ànd ak convoi bu rëy ñëw fekk leen fii Thiès ñu ànd Chérif Ibrahima Haydara Tijani. ñu la doon laaj nan nga gisee ziar bi ak convoi bi jugee Dakar ñëw fekk si ñi Thiès ànd ak waa Thiès dem Louga. wa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin gannaaw bu nu nuyoo nuyoo lislaam bi nu yàlla sant muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. dañuy sant suñu borom. nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaxfiruhu wa natuubu ilayh di julli ci yonante yàlla Muhammad salallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam di tëbbu ci leeru Cheikhna Ahmada Tijaani radiyallahu muy maamam euh, Cherif fa tabaarakallaahu suñu wëllëre ëpp na fanweeri man ak moom ak sëñ Sidi ñoo doon ànd ngir yàlla léegi laa koy wax ni ko li ma seede ci yow daal mooy mosuñu fanaan fenn nga fanaan si dara lu sa alxuraan wala sa kurus booba sax xaalis yomb waaye moom lu mu am joxe ko nit ku baax la ku am diine la ku am xam-xam la jullit la Euh, tey juddu baax na mais yi am solo mooy jikko ndax yàlla lu mu tagg yonentu yàlla mu Muhammad mooy jikko ju rafet Chérif jikko jee baax moo tax ku mu am daaw du ko ñàkk ren loolu suñ jotaay bi amuñ jot xat-xat yi bari na wéréd yi am na waaye moom lu mu yëngu bu ñu ko yëgee rek dañ bàyyi suñ lépp ànd ci am moom lii dem nañ ci ak moom ba tàyyi lii sëñ si di wax rek xéewalu yàllaa ngi ci ndax ki ñuy fekki Eh, sët Cheikh Omar Fouti la radiyallahu taala anhu di sama mbokk ndax sama papa Mariama Tall Amadou Cheikh Amadou Cheikh Omar waaw ñoo bokk benn dara nit yàlla ñu xam ko bu yàgg tabarkalaa fu mu ne jar naa waaye nag bu fekkee moom li maamam am lépp Cheikh Tidiane ko jox ci la jóge moo moo wólalanteeg sëtu Cheikh Tidiane teg ko it fu mu tegul kenn ñu fekkee xam dégg la muy wax ci moom sëriñ bi mënu ko fay lenn lu fa boppam ak lu mu am jox mooy yoonu yàlla na ci yàlla barke ku ci ñëw yàlla yàlla faj sa ajo ñu dellu ci jàmm yàgg koo def yàgg ko faa fekk yàgg ànd ak sëriñ salaamaaleykum wa ngeen jëf mbokk yi mi ngi noonu nga gis ñu àndoon ak euh, sëriñ Sidi Mokhtar Kounta bu Ndiassane waaye ànd ak euh, sëriñ Souleymane Seck bu Canaba ñëpp xam nañ ko xam nañu leen ak seen wëllëre diggante. ñoom ak Chérif Ibrahima Haydara at Tijani kon ñi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yoon wi ñu jël eh, yàlla ñu yegg ak jàmm te ñu ci yeggee niñ leen ko waxee woon aussi noonu lañ leen koy defalee dinañ ko jël en direct jox leen ko comme ni ngeen ko bëggee wa axiru daawana an alhamdulillah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu dellu di leen eh, nuyuwaat beneen nuyu bu bees nuyu lislaam nga xamante ne bii moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee suñu borom pour jullit ñëpp euh, di am jàmm nuyoo yooyu la ñuy tegaat ci seen loxo ñu taxawaat ak sunu kilifa alxaaji Madické Seck ñëpp xam ko bu Canaba te ku tudd Canaba tudd xam-xam ku tudd Canaba tudd nitu yàlla ya fa ne fa tabaarakallaahu man mii taxaw ma xam ci dara ndax moom am na lu ñu lu ñu lëkkale man ak moom euh, ci wàllu xam-xam ca dëkk ba na muy doxe kon ñu ngi taxaw ak alxaaji Madické Seck fa tabaarakallaahu ñu bàyyi ko mu nuyoog mbokk yi ñu paree ñu laaj ko li ñu koy laaj incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax. di sant yàlla bu baax a baax a baax di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di la fay nuyoo. Euh, jërëjëf Baye Madické euh, ku xam fa nga jóge xam ni dëkku xam-xam la. waaye it euh, lenn lu nekk dañuy wax ni la ko li wolof Njaay di léeb ni lu yëngu lu ne la ko yëngale ko ëpp doole tey ñu toll ci bés boo xamante ne bi daanaka war nañu wax ni diine yëngu na diine amatina ndam diine amatina yëkkatikuwaay bu mag a mag a mag euh, ñu bëggoon a xam rek euh, lan moo waral ziar bi nga xamante ne bi ànd nañ ko ak Chérif Ibrahima Aïdara Tijani jugee Ndakaaru ñëw cees Escale ànd ak mbokki Thiès jëm Louga incha allah sëriñ bi ziar bi ku ne xam na ni ziar nekk na ponk bu rëy ci lislaam mhm. ndax innama al muminuuna ixwa fa mhm. aslihu bayna axwaykum la yàlla wax ca mhm. loolu mënta wér mukk ca mbokki jul ji ziarante wuñu am na benn xadis mu ngi wax ni euh, bu ëllëgee am na ñuy jege tabaraka wa di toog ak moom ñooñee seen jëf ja tax ñuy toog di jege tabaraka wa taala du dara dul gis nit bëgg ko ngir yàlla bëggante ngir yàlla soppante ngir yàlla rek ca loolu ziar bi soppante ngir yàlla moo ko tax a jóg kon ñëpp xam nañu ziar bi lu am solo la yàlla na yàlla defal ñu ci jàmm liñ ciy wut nga xam ni yiw rek lañ ciy wut yàlla yàlla defal ñu ko ci Ibrahima Aïdara mii ñuy àndal Chérif nag ku ko xam-xam ni lépp lu mu dugal loxoom rek loola lu sell la ndax euh, am na nu ko yàlla binde nit ku bari xam-xam la waaye nit ku baax la waaye nit ku sell la waaye fa ñu jëm na ci Thierno Bachir ku ne xam na ni Thierno Bachir Tall moom itam euh, mu xaddam la bu mag ci tarixa Cheikhu Tidiane te tarixa Cheikhu Tidiane itam nag mooy lislaam rek waaw astaxfirullah laa ilaha illallah julli ci bi loolu lépp lislaam rek la kon daal ñu ngi am kontaan di dalal suñu xel bu baax ci lii ñu ànd ak moom ngir yàlla jëm ci koo xam ne nitu yàlla la di fa wuti loo xam ne mooy roofonte ngir yàlla lépp di aw yu yàlla ko yàlla sotti ci Sénégal sotti ko ci jullit ñi jullit ñi nag yàlla euh, amuñu lu dul lislaam jullit it day loo xam ne ku ko xasa doon am nga loo xam ne moo ëpp lépp kon yàlla yàlla gën ñu cee saxal ci yàlla may ñu ñu gën ko di sellal jàppante ngir yàlla ànd ngir yàlla dem ngir yàlla ñëw ngir yàlla lépp lu ñuy def yàlla yàlla tax ndax ñu am ci payu yàlla sëriñ bi loolu daal laa ci amoon lu may waxagul. jërëjëf jërëjëf euh, Baye Madické bu ko dégg xam ni kàddu yu am solo la fa tabaarakallaahu ñu jàll ci colonel Alxaaji Ngañ Fay ku ko xam euh, tabaarakallaahu xam ni Chérif Ibrahima Haydara Tijani ku ko wóolu la am na lu bare bare bare yoo xam ne ci loxoom la koy teg kon euh, Baye Ngañ ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax yow duñu la présenté tey duñ la laaj kan mooy Chérif. salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu télévision Dabakh Chérif Dabakh ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay di sant yàlla bu baax di julli seen si yàlla Muhammad laaj nga ma koo xam ni ku ku jafee xam la waaye ku neex xam la Chérif Ibrahima dara arab dafa wax ni ku israh jamilan walaw fi xayri mawdihihi innal jamila jamilun ay nu mazuriha loolu maanaam ci ci ci ci tënk rek Chérif Ibrahima Aïdara mooy El Hadj Abdoul Aziz Al Malick rek waaw ndax arab du wax ku la jur ku la yar rek lay wax fa tabarakallahu man nag boo ma laajee sama diggante ak moom xam xam ngeen ma sama digg ak moom may ndi jooram di tànkam di xolam di di léppam ah maa ngi moom ba ci kanamu maamam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu wax waxam waxam juree jooju leen mu wax yonent bi te yàlla nangul ko ñaanam ca Medina Munawara maa ngi toog seede loolu da moom mi sax daf ma koy tere ndax fa tabarakallahu ndax ah, maam Seydi Hadji Malick mi nga xam ne mooy sunu yaakaar tey ak ëllëg nee na wa wax lam yuwaffiq min shariatina waaw nit nit ba nit bu dee nite bu mu jaawale baatin ak baatil ñu ne ko luy baatil mu ne mooy làmb yii mhm. nga xam ne yàlla xam ne kii daan waaye yoonu yoonam newu ci mhm. waaye baatin nag moom la Chérif dox digganteem ak kii mu ziare tey muy kan muy Cerno Bachir mhm. Taal fa tabaarakallaahu nga xam ne moo doon euh, euh, cheikhul siwax yi sëriñu sëriñ si mu Cheikh Omar Fouti yi wala wow nag doxoon ak cofeel googu mahabba boobu doxoon diggante Alaaji Abdul Aziz ak fa a sunu xaal euh, Cerno Cerno Bachir Tall wala woo ak ak mahabba boobu moo dox diggante Chérif Ibrahima ak ak Cerno Bachir taal mi mu ziar tey gis nga ko lu mu def xeeb dama koy faral di wax ci micro ne la ne ko bilay ku la toppandoo ci diine li nga nekk ci diine ku la toppandoo police police am gan muy ree loolu mooy mooy témoignage bi nga xam ne moom laa moom lay wax di ko wax ci Chérif Ibrahima Aïdara di ñaan rek sunu borom tabaaraka wa taala moom moom moom fanu gudd moom moomu wér moom moom moom moom sañ mooy sañ-sañ bi. Mm-hmm. mu fa xaalun li maa yore la wax. Mm-hmm. yàlla na ko fi yàlla bàyyi ndax li lislaam bi la sagub diini ji la mm-hmm. fii télévision bi ñuy wax tey nga xam ne fa tabarakallaaw moo ci moomeelam la loolu mooy jom oto yi gaare tey oto bu gën a cher bu mu doon xeeb na ko V8 baa ngee gaare ak yeneen ak yeneen kon ñu ngi ñaan rek maanaam nit de doon wax ni boo xamee lépp ci moom lu ko dal yow la waaye ñu ngi ñaan daal fa tabarakallaahu Chérif Ibrahima dara yàlla guddal fanam yàlla bàyyi ko fi bàyyi nu fi te it lépp loo xam ni ma njariñu lislaam la yàlla bu mu ump ñun ñii yéen yéen it yàlla mu leen ump la presse yi nga xam ni yéen a yor micro bi nii fa tabarakallah yor télévision bi yàlla yëkkati leen ni asamaan ci daraje yonent yàlla Muhammad barke Seydil Hadj Malick barke El Hadj Abdoul Aziz barke Sidi Aboubacar Si jërëjëf jërëjëf merci jazakumullahu na xeeran kon euh, loolu moo fi jàlloon ñu tuuti ci kanam incha allah ñu dem seeti ñeneen bisimilah.

وأشياخي وشيعتنا أحبتي وذوي الإسلام يا باري أسترونا كما الله يا ربي رد زحزحني علينا من نار أزكى صلاة وتسليم على أمر من نوره ليل ما نلنا من أنوار أسطرهنا ككبار ذي معاد يا الله يا ربي زحزحني عن النار